jàngat bi Chérif Souleymane lañ ci àndal ni ko defee aljuma bu jot tey itam ñu waxtaane la xew ca Mali muy embargo bi waaye itam euh, njeexintal li nga xam ne am na ko ci wàllum koom fii ci réew mi. waaw ni ko waxee noonu la ginnaaw bi nuyoo Souleymane Cheikh Tidiane ak mbokk téléspectateurs yi. Mm-hmm. Euh, gis nañ ni CEDEAO dañoo daje daal am ay tegtal yoo xamante ne jox nañ ko njiitu réew ngir ñu teg ay daan Mali ginnaaw rek euh, ba nga xamante ne coup am na fa ba Ibrahima Boubacar Keïta ñàkk nguur gi. Mm-hmm. am na ci réew a jëfandikoo

dina ko gaañ ci digganteem ak Mali si jëflante yi ñu jëflante ci koom-koom mm-hmm. ah Sénégal bu ci jiituwul tamit bokk na si ñi si jiitu mm-hmm. parce que ñëpp ëmpul kenn nii port Dakar mm-hmm. euh, place bu mu am ci weccoo yooyu ñu am diggante Sénégal ak Mali at bu ne loolu day yokku euh, tey jii buñ ko xaymaa ëpp na trois millions de tonnes ci ay marchandises yoo xam ne fii lay jaar dem Mali Et tout ce que vous savez, c'est Mali Diar, fille Dakar, mm -hmm. pour gagner. Nous avons exporté le coton, mhm. le produits agricoles, mhm. le mm beurre de karité. Mhm. Mais ce qui est un petit, parce que c'est 2 millions et quelques, 3 millions, ça, parce que c'est 200 000 c'est di dugg biir euh, Mali di Jar Sénégal rawatina ci lu boo ko ci tonnage parce que il faut faire la différence entre mhm. tonnage bi mhm. ak valeur bi volume bi ak valeur bi volume bi lu mou mu mhm. parce que dafa aussi bëri ay produits pondéreux lu mel ni ay clinker xam nga loolu li ñuy defaree ciment dafa dafa diis donc beaucoup xoolee ci tonnage bi day bëri mais bataille, ay espace yu rëy la laaj lu mel ni Môle 3 nga xam ben terminal la dañ ko dédié au Mali euh, produit Mali rek mo fay nek. Il y a ay entrepôt un magasin am nañ fa même en dehors du port Bel Air xam nga ñëpp ci il bi entrepôts di entrepôt Mali donc vraiment euh, port bi important. importance mais pour remettre en contexte vers 2000 2002 euh, entre 1999 et 2002 une crise ivoirienne il y a qui ci qui ci nan le Mali di dugalee les marchandises ci ci dëkk bi c'est-à-dire ñoom seen stratégie stratégie de diversification le mësa c'est-à-dire ñoom dañuy liggéey ak Sénégal waaye dañuy liggéey ak Côte d'Ivoire euh, dañuy liggéey ak Guinée même Mauritanie dañuy liggéey ak Lomé dañuy liggéey ak Ghana mhm. euh, même les pays de l'interland dañuy liggéey ak ñoom donc diversifier c'est une ay yon yu ñu jaar mhm. waaye Côte d'Ivoire mon perte en faveur du Sénégal bi crise bi amee Côte d'Ivoire marchandise nag lu mu bëgg moom mooy stabilité sécurité ak yi ni mel te loolu boo comparé diggante Côte d'Ivoire ay Lomé ay yoon yi am yëpp mhm. Sénégal gënul gàttan hein. Conakry a Conakry Bamako moo a gàtt Dakar Bamako. Mhm. parce que c'est 1000 km à peu près alors que Dakar ëpp na donc moo quelque part on peut comprendre euh, journal yi wax ni que Macky Sall et Ouattara. Mhm. beaucoup de position vraiment ils bloquent. en l'occurrence je pense que Cheikh Tidiane dina gën a <laughs> xuus ci parce que mon lolu mooy spécialité il mhm. est docteur euh, en la matière. mais ce ci je wax effectivement. Euh, c'est normal que Ouattara une mhm. position mais c'est une fan, ben, bi politique la. Mhm, Ouattara quand même le précédent bi am Mali. am euh, Côte d'Ivoire donc taxawaayu Côte d'Ivoire foofu mën nañ ko comprendre. vous mhm. euh, xoolee seen langage. Ouattara dafa dit il faut agir avec force et détermination il faut ñu taxaw taxaw dëggu. ak ànd ak pas-pas. Hein, ak pour delloowaat. Euh, mm. Mm. ordre constitutionnel ordre mm. euh, constitutionnel fële ca ca ca Mali euh, suñu président Macky Sall né ben, il faut ñu dialoguer deuxièmement bu nekkee dañoo nar a usage force parce que loolu tamit loo am importance bu ñu waree intervention non mën na bañ a nekk intervention militaire ko proposer. mais nee na il faut ñu am mandat au niveau des Nations Unies donc ñaari dëkk yi dañoo xaw a waroo ci seen analyse ak seen taxawaay ci affaire bi lolu moy aspect politique bi aspect économique bi nak lolo ko indi c'est-à-dire dafa amé part de marché yo xamné habitants Abidjan moo ko ci importation Mali yi mhm. Dakar fi ko ci ñoom mhm. wayé situation bi bu mu amee mhm. Mali ta na dëkk bu stable bu mel Sénégal Té, c'est dans l'intérêt du Sénégal tay ñu baña a frontière yi ak Mali complètement parce que il y va ñun suñu port oui, am nañ tamit produits que nous exportons, nous sommes Mali mhm. Nous on est exportateur euh, je pense même net euh, par rapport à Mali Nous exportons lu Mali parce que nous, dañu fàtte ni mhm. en dehors des produits euh, chimiques et pétroliers mhm. am aussi même les bouillons là nous avons ñun suñu hein. exportation bouillons yi dafa am rôle important bu jouer. ciy joué Sénégal day exporter le Mali même au delà du Mali ay Burkina Faso ak yi donc c'est important euh, géopolitique bu reuy moy dox diggante euh, euh, Sénégal ak yeneen dëkk yi. Mm. té nak menace bu jógewul ci Côte d'Ivoire kese. le port de Lomé. Mm-hmm. c'est l'un des meilleurs mm-hmm. ports de l'Afrique de l'Ouest mm-hmm. et même de l'Afrique c'est un port en eau profonde def nañ ay ay investissement yu am solo même Mauritanie bi nga xamné ne sax xamewuñu portam port Noadibou port bu mag nonu ñom sen bop ñi ngi doon négocier ak Mali pour nous avons na des télé, nous avons fait des day yombal loolu concurrence bu rëy la bu mm. nekk ci kaw port Sénégal mm. donc euh, Macky Sall effectivement euh, mu ngi manœuvrer intelligemment mm-hmm. pour que effectivement principe démocratique ordre constitutionnel état de droit etc., respect de la constitution nous respecté ko parce que loolu mooy qui ñu seq mm-hmm. ci UEMOA CEDEAO au plan politique mm-hmm. waye économie bi daf ci am solo lol té mëno mm-hmm. japp bi bàyyi beulé il faut nga xol équilibre diggante mm-hmm. ñaar. est-ce que ci contexte bi aussi parce que ñi ngi wax non defoon nga fi jangata yi ci sunu relance économie et cetera ndax gis nañ Covid bi conséquences yi lolu aussi buñ ci bëggé dool li déggal li CEDEA wax day gëna compliquer suñu situation économique. waaw bien que je pense ah ñaari aspect yo xamné mëna am na fu ñu mais bataille wouté wute parce que ñun suñu relance économique nous sommes ko bëgg l'agriculture. Nous sommes agriculture. sur mhm. l'agriculture. ko bëgg services, si agriculture waaye services yi bo formation suñu structure formation suñu suñu PIB services yi dafa am euh, rôle important bu jouer. Les ports, les port transport bu muy andal et cetera ci services yi la donc. Euh, bien que nous accès une relance économique ci agriculture bi mhm. mënuñoo le mhm. rôle bi nga xamné mom le port bi di jouer ci relation ak une relance économique mhm. c'est-à-dire quand même c'est beaucoup d'argent bien que nous xolé faveur yi def parce que lolu tamit concurrence daf koy indi day am ci prix et ak ci ni les services port de Dakar tay produit malien bu fa a une franchise 21 jours yo xamné du fay dara à partir du 21e jour nous ñu commencé di des te les les sax mm-hmm. par type de produit les céréales les produits pondéreux etc. Ce c'est pas tellement tellement euh, élevé mm-hmm. mais stratégiquement parce que service secondaire secondaires ont une importance Les mm-hmm. transports, transport les camions, camion euh, euh, droit de porte les ngay fay parce que maliens yi sont là, ils sont dëkk dañu lek dañu nan hmm. dafa am dal ben économie bu mu andal hmm. bo xamné hmm. même même dëkk yi nekk ci corridor bi dañ ci bénéficier absolument bien sûr am aussi ay externalités négatives parce que camion yi gis ngeen ni muy def suñu tali accident yi euh, accident yi ak nu muy yàqee tali 55 milliards par an d'après certaines estimations yu ñu dépenser pour maintenir tali pour defaraat ko da ngeen di dem ci tali Mbour bi amon na ben moment bo xamné foofu sax fa daw vitesse parce que mhm. vitesse ci ci euh, mhm. mais les bénéfices et euh, yeen bi mhm. di stratégiquement taxawayu président Macky Sall bu am solo la ci euh, équilibre principe yi nga principe yu importance état de droit c'est important pour la sécurité régionale Euh, ordre constitutionnel c'est important après xëy na mën nañ dugg ci li tax militaires yi def li ñu def yi la mooy njeexital bi nan la ñu et mais mais il faut mu ànd ak équilibre économique mm. te loolu intérêt yi dañoo waroo diggante dëkk yi nga xam ne noo nekk ci UEMOA te ñoo nekk ci CEDEAO rawatina nag diggante Sénégal à Côte d'Ivoire. Mhm. vraiment le plan politique le plan économique mhm. foofu euh, pour une des rares fois. Mhm. vraiment ñaari dëkk yi euh, dañoo Je surtout que la euh, situation bi euh, day won askan ce qui se passe <laughs> chez le voisin un impact bu muy am ci yow imaginer. Mm-hmm. parce que l'impact impact ci vit vie actuellement dans nekk ci période boo xamee ni quand sous région bi. Mm-hmm. Euh, signaux qui sont doy ah Oui, parce que crise yi crise sanitaire crise sociopolitique. Mm-hmm. crise euh, euh, économique crise financière. yooyu yëpp dafa booloo. d'ailleurs si aspect financier bi. Mali pas plus tard qu'il y a une semaine, je pense, euh, levé au même titre que tous les pays de la sous-région. Mm-hmm. Parce que vous avez remarqué dans la presse d'ailleurs, eu moi titre, y ay avis yu et vous savez, que le nek au ay fonds Sénégal yëkëti na 200 milliards tek a yenen 37 milliards mm-hmm. ay obligations ay obligations assimilables du trésor a day am. Mm-hmm. Mais euh, le moment qui donne, euh effet de contagion, effet domino bi nga xamné mom moy am ci dans une euh, région intégrée mhm. comme Afrique de l'Ouest mhm. loolu euh, ken du ko natable lu xuri ken ki mhm. wax kenen. amul ken ko hamne, nek niti na ci silo bo ham euh, d'ailleurs ça nous <laughs> ça nous amène à la question sécurité, parce que aussi intérêt bi am ci jàmm am Côte d'Ivoire jam am Guinée am Mauritanie rawatina Mali momoy mooy dëkk yooyu bu fa crise accentuée au beau ba mujj ci kaw wax dëgg Sénégal du mën a mucc dëgg des frontières naturelles il y fleuve des fleuves, il faut voilà protéger un tout petit peu mm-hmm. mais un fleuve c'est rien du tout c'est quelques centaines de mètres donc euh, quel que soit aussi investissement yi ñuy def ci sécurité. quand mhm. euh, yi est le long de la frontière. Mhm. Euh, investissement yi est def armée etc., cetera et cetera. Mhm. dafa am antenne ak une antenne, antennul. antenne moom une majorité de stabilité suñu environnement. waaye bu nekkee ni nag dëkk yëpp dafa attaquer. Euh, wax deug yalla mhm. dina jafé lol lol Sénégal mu ci mhm. donc euh, effet de contagion bobu il faut ñu mhm. xol ko plan sécuritaire mais ñun dañuy vendre naan ay CEDEAO euh, des peuples ñu wax naan amna principe sax bo xam dañ koy dégg même boy jang ci école ay libre circulation des personnes et des biens ay njiitu rew juk né nañ tëj frontière am deuk est-ce que loolu sax mos nañ koo gis ci CEDEAO mengo nak principe bi taxone ñu créer

décision yi ñu mhm. euh, au niveau des chefs d'État mhm. euh, même bu nekké ni mën nañ japp ni application texte yi am la ay protocole yu ñu signé ay protocole additionnel ay charte ak ça euh té euh Afrique de l'Ouest mhm. dafa nekk modèle d'intégration mom dina si ñëwaat bu ci kanam fa nekk modèle d'intégration mais modèle bi mu ngi commencé effrité wu tuuti ñëpp dañ ñu ko doon euh, nawee euh, ñu ñooy euh, je veux dire euh, région intégration régionale bu avons abouti boo un bloc yi am ci Afrique Mais mhm. aujourd'hui, jii boo chef d'État nous ni ñu par rapport ak ni ñu bëggoon euh, intégration bi demee mhm. par rapport ak ni ñuy intégré peuple yi ak yu ni mel mhm. loolu xëj na dina am tuuti mbetteel bu ci nekk mhm. waaye ba tey euh, yaakaar naa Cheikh Tidiane bu su ñëwee dina gën a leeral def def si ñëw sax tontu ci léegi Souleymane ñu lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf mu ngoog jàngat bi la ñu àndaloon ak Souleymane Niang bu doon wax njeexintalu euh, yi am rek ci blocus boobu nga xam ne ñu ngi koy junj mu jóge ci CEDEAO jëm ci Mali ak la fa xew njeexintal yi fii Sénégal mu am ko fi ci wàllum koom la woon léegi-léegi dañuy dalal suñu invité des ba tey ci sujet bi